thank you possible mën na nekk soo ne oui c'est possible mën na nekk moo nekk yëmbal Sud asalaamaaleykum monsieur le ministre salaamaaleykum tous les investis du département salaamaaleykum responsable département de Kër Massar naa ku nekk turam ak santam contentement boo xam ne nii am na fu mu tàmbalee mais xaw ma fu muy jeexee parce que j'ai jamais espéré que danaa mun réunir avec l'appui de monsieur le ministre qui va boo xam ne ni dana lancer un message à tout le département de Keur Massar dajale tous ces responsables là mais fii balaa may dugg ci luy wuy c'est possible dafa am koo xam ne su ma taxawee fii suñ ma xamee politique su ma amee dara ci politique su ma sant yàlla ba pare dama ko war a rendre hommage sant ko sant ko sant bu dul bu amul àpp te ma bëgg képp koo xam ne kii gis na ci man yaakaar gis na fu man ma sori nga jóg tàccul ma ko comme jamais il n'a été applaudi dans sa vie mooy El Hadj honorable député Moussa Ndiaye dama bëgg ngeen tàcc ko bëgg ngeen tàcc ko ngeen sargal ko parce que Soxna Ndiaye am na lu mu wax sànq wante fayaguma bor bi fayaguma bor bi je tiens honorable monsieur honorable député yàlla xam na ni mënuma fay bor bi il m'a fait daf ma defar daf ma won yoon daf ma tete dama doon dem si dëkk bi def toj-toj su ma ñëwee Moussa Ndiaye ni mën naa ko def j'ai jamais vu un leader comme ça je tiens à ce ñu tàcc ko tàccuwaat ko tàcc ko tàccuwaat ko Moussa Ndiaye yal na yàlla guddal sa fan et la nga doon ji si ñun bés ñëw ñu egg fa nga yaakaarul ne danañ fa yegg jërëjëf honorable député Moussa Ndiaye lan mooy oui possible ak ñan ñoo ko composé oui c'est possible du leneen lu dul plateforme de réflexion plateforme d'accompagnement dañuy xalaat dañuy jàppale bépp nit buy yëngatu ci biir APR d'abord ci biir coalition bi ensuite ak bépp nit bu bëgg président Macky Sall plateforme bi mu ngi exister depuis 2020 ñu liggéey secret yu bëri bind yu bëri xalaat yu bëri ñu jébbal ko ci ay nit ñoo xam ne ni jëriñoo nañ ko sant yàlla amul ñoo xam ne nii fa lañ jaar am virus politique engagé aussi politique sant leen gërëm leen parce que gis nañ seen taxawaay gis nañ luñ luñ defal waa yëmbal Sud et même plateforme boobu am na ñu dëkk Sénégal am na ñu nekk Sénégal mais am na ñu nekk sax à l'étranger ñoo xam ne ni bëgg ak yéene Macky Sall jàpp nañ ni que ñun ak ñoom ñoo bokk gis-gis moo tax ñu mun ci ñun ñu dugg si. ñu ngi leen di gërëm di leen di nuyu à travers les réseaux sociaux ils sont partout dans le monde ils nous entendent ils nous écoutent ils sont en France ils sont en Italie ils sont en Espagne ils sont aux États-Unis ay xalaat la ñuy wéccoo te lépp loo xam ne ni jàpp nañ ne ko war nañ ci duggal seen loxo pour dëkk bi jëm kanam ñu ngi ci duggal seen loxo sant leen gërëm leen ici parce que amuñu occasion ñëw fii. plateforme boobu aussi dafa gis boppam ci ministre Amadou Hott ci ministre Amadou Hott parce que jàpp nañ ni qu'il incarne un leadership un leadership bu war jëriñ askan wi bi war a jëriñ yëmbal danaa ci ñëwaat tout à mais plateforme bi mu benn objectif bu jege bu jege ci fu ñu toll nii objectif boobu moom mooy mobiliser remobiliser l'électorat de Yeumbeul Sud mobiliser remobiliser l'électorat de Yeumbeul Sud ëpp ñu am ay résultats yoo xam ne nii moo gën ci résultats yi ñu mës am bi ñu commencé politique ba tey foofu laay xaw a taxawee parce que am nañ sunu koo xam ne ni dafa bokk ci investi yi mu nekk le ministre Assome Diatta empêché yónni son chef de cabinet madame Safir Mbaye Safir Madame Safir Mbaye, soyez la bienvenue. Bismillah à Yeumbeul Sud. L'autre objectif immédiat moo nekk dañoo bëgg a contribuer au même titre que li ñeneen ñi def à la massification et à l'animation du parti et de la coalition Benno Bokk Yaakaar lii mooy oui possible ce n'est rien d'autre ay nit la ñu engagé ay nit la ñu am xel am na nit ñu am xalaat am gis-gis am doxalin mu am ay expert dans beaucoup de domaines nag loo xam ne ni pare nañ pour def ko à la disposition de tout leader politique de Yeumbeul Sud de tout membre de l'APR de tout de tout parti ou mouvement membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar au bénéfice exclusif du président Macky Sall boo xam ne ni moo ñu yónnee ministre de l'économie Amadou Hott ñu war ko teg ci loxoom pour une victoire éclatante au soir du 31 juillet foofu laay jaaree transition pour wax pourquoi Amadou Hott est le parrain de cette journée. il aurait pu mënoon te mën na nekk président de la BAD. te kenn du ci wax dara te yëmbal Sud du ko jëriñoo en tout cas pas avec cette proximité la mën na nekk te mënoon na nekk directeur général du FMI Fonds monétaire international te proximité bu mu am ak yëmbal Sud bi doot du ko mën a am mënoon na nekk directeur général de la Banque mondiale te proximité bu mu am Yeumbeul Sud dootu ko mën a am mënoon a diriger n'importe quelle institution financière ou de développement du monde te ñun Yeumbeul Sud du ñu mën am proximité bu mu am plaidoyer bu mu ñu defal kooku le président Macky Sall xelam dem si moom mu dem jële ko baat mu nekk si position pour doon président de la BAD mu ne ko soo doonee président de la BAD la ma soxla si yëmbal Sud la ma soxla si Sénégal dana soxe dama bëgg nga ñëw jàppale ma accompagnement ñu liggéey Sénégal te mënoon na bañ a nekk yàlla dimbale ñu mu nekk kooku mooy ma bëgg ngeen sargal ko sargal ko parce que son engagement son engagement et le prix d'énormes sacrifices financiers engagement c'est le prix d'énormes sacrifices sur sa carrière professionnel et personnel kooku mooy sunu parrain kooku mooy sunu parrain ma bëgg ñu sargal ko ñu sagal ko tàccu leen ma ko avec tous les vivants nécessaires jërëjëf ministre jërëjëf monsieur ministre jërëjëf monsieur ministre yëmbal Sud soxla na la le département de Keur Massar soxla na la le Sénégal a besoin de vous monsieur le ministre le citoyen lambda am na lu mu mënul comprendre ñun nag suñu devoir la pour que le citoyen lambda comprendre que monsieur le ministre la ngay def sacrifice la cette proximité là c'est un énorme sacrifice sacrifice boo xam ne bi sa xol nga ko tibbee pour que nit ñi mën ko jëriñoo loolu lu jar topp la sàmm à titre personnel man de jàppal ne jusqu'à mon dernier souffle danaa ko sàmm danaa ko topp danaa fexe sénégalais bu mu mënti ci adduna bi mu comprendre ce que tu ce que vous valez et ce que vous pouvez faire pour ce pays-là le président de la république dafa def tànneef mu toog mu tànn cent et quelques personnes mu ne ñii la tànn nañ dem représentement à l'Assemblée nationale dañ koy féliciter ci choix yooyu wan ko ni ànd nañ ci tey ànd nañ ci guddi ànd nañ ci bëccëg on est avec président ay Baye Fall lañ quand il dit c'est gauche la liste bu mu tànn mooy sunu liste ci loolu bi mu tànnee mu jël ay doomu Kër Masaar ci biir doomu Kër Masaar yooyu mu bàyyi ay doomu Kër Masaar yoo xam ne représenté nañu dignement à l'Assemblée nationale je voudrais ici les rendre hommage mooy l'honorable député Samba Demba Ndiaye mooy l'honorable député Moustapha Mbengue l'honorable député maire Moustapha Mbengue ils ont fait un excellent travail à l'Assemblée nationale yàlla li mu leen dencal kenn xamul nu mu toll mon intime conviction est que c'est des gens qui resteront au service de la communauté au service du président Macky Sall mu tànnal ñu madame la ministre Assom Diatta tàccu leen ko c'est la dame boo xam ne ni ñëpp xam nañ lu ñuy def dans le département de Kër ñu koy nuyu à travers son chef de cabinet bu mu délégué si elle n'était pas empêchée dafi teew mu tànnal ñu Cheikh Mbacké de Yeumbeul Nord Cheikh Mbacké on a cheminé depuis le premier jour bu ñu créé APR yal na ko yàlla may ndam il est jeune il a toujours été engagé aux côtés du président xam lu président bëgg di ci dox guddi di ci dox bëccëg di koy ñaanal yàlla mu tànnal ñu Oulimata Ndoye qui était là depuis les temps de Brest temps bu muy méttee boo xam ne dañ doon dox xoslu dem Mermoz ñuy sànni ay lacrymogène waaw di cotiser waaw c'est donc ñi ñu tànn c'est des gens qui ont mouillé mu tànnal ñu et je vais insister là-dessus te dama bëgg Yeumbeul Sud yëpp jóg ñi teew ñëpp jóg parce que c'est un fils de Yeumbeul Sud bu démérité wul bu muyee le maillot mooy El Hadj Modou Mbène Diop El Hadj Modou Men le candidat du président Macky Sall. El Hadj Modou le candidat de Amadou Hak. El Hadj Modou Men le candidat de tous les responsables de l'APR. El Hadj Modou Men le candidat de tous les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar de Yeumbeul Sud et du département de Keur El Hadj yal na la yàlla may ndam may président Macky Sall ndam may ku nekk ndam bravo et du merci El je voudrais jeexal ci benn fait euh, am na koo xam ne ni. na koo yàlla dafa def yàlla dafa def moom it mu dëkk Yeumbeul Sud benn coalition boo xam ne ñu ngi ko tuddee yeew askan wi investir ko benn coalition boo xam ne ni ñu ko tuddee yeew askan wi mu investir ko yeew j'ai bien dit yeew

le premier avertissement ba ma koy defal la mairie de Yeumbeul Sud du espace publicitaire du espace publicitaire du foo xam ne da dem wut banderole takk gauche takk droite ne maa ko moom moom ma avertir ko fii bés bu ko defee waa Benno Bokk Yaakaar yëpp suñu jógul personnellement danaa ko dindi jàll na ma bàyyi si sama bakkan je l'avertis que foofu du place publicitaire benn panneau benn affiche bu fa personnellement maa ngi xëy ak ku ma ñeme ku ñeme parce que danañ ko dindi. il a manipulé nos populations en s'appropriant de ce que le ministre Amadou Hott a fait mbedd charrette yi mbedd Thierno Ndiaye Amadou Hott moo def le plaidoyer ñu defar tali yi may leen benn nouvelle parce que dana ko waxaat dans le projet Promoville dans les plaidoyers qui ont été pour yëmbal ci tali bii ñu taxaw nii monsieur le ministre Amadou Hott dugal nañ ko ci dañ koy defar bés bu taxawee fii ne maa leen ko lijjantil ne leen ko waxoon nañ ko de te lijjanti ko woon waxoo ko woon. c'est un et na ma déglu durant tout le mandat je montrerai son vrai visage à la face des Yembelouas. Ces fautes de gestion, ces PV fictifs, délinquance financière pour mes délinquance foncière ak tuuti foncière bi ñuy def lépp danaa ko teg si kanamu waa Yeumbeul Sud ñu xam ne avec qui ils ont affaire et il a bloqué notre développement dina leen xamal ne que les trois milliards cinq cent yoo xam ne am nañ ko ci juróom-ñaari at yi dugalu ko Yeumbeul Sud ci poosam la ko dugal ci ay xaritam la ko dugal dina leen wane que ce mandat de député qu'il cherche wutu ko pour développement Yeumbeul Sud wutu ko pour défendre Yeumbeul Sud parce que un député de l'opposition mënul indil ko xam dara au nom de quoi ñuy bloquer les populations Yeumbeul Sud pour les intérêts crypto personnels d'un délinquant financier un homme averti en vaut deux un homme averti en vaut deux nañu fekkante ci terrain bi ma jeexalee ma jeexalee sur le compte administratif qu'il n'a pas fait bientôt deux ans maintenant ñun waa Yeumbeul Sud ñu toog lan mooy compte administratif mooy xaalis bi ñu dugg si biir Yeumbeul mu jëfandikoo ko lekk ko nan la ko jëfandikoo te mënu ko justifier on ne peut pas voter un budget sans compte administratif ah monsieur maire c'est ce qu'il a suñu conseiller woo woon waaye foofu xanaa conseiller yeew yi ñëw xanaa ñooñu danañ ci def dara parce que peut-être je connais de grands intellectuels yi fa ne ñoo xam ne ñi certainement intérêt yëmbal moo leen ñor je vais pas les citer ne pas les mettre mal avec son dispositif ma jeexalee nag à un appel avec un appel solennel avec un appel solennel J'appelle à l'unité de la coalition Benno Bokk yaakaar J'appelle à l'unité de la paix. Nañu benno. Nañu benno. Nañu benno. Nañu benno ci jëf yi benno ci xol yi. Suñ ko defee danañu jëriñ Yeumbeul Sud, danañu jëriñ président Macky Sall. J'appelle à la solidarité, nañu jàppalante. Nañu jàppalante. J'appelle à l'engagement de chacun derrière Monsieur le ministre Amadou pour sauver Yeumbeul Sud de, ce pervers qui ne nous aime pas qui n'est là que pour lui et lui-même sant leen gërëm leen oui c'est possible mën te mën merci beaucoup président borom mën na nekk mën na nekk te dina ma ñaan daf ma ñaan nañ def deux mots pulaar. bandiraɓe allah jarama on jarama mbiyanmi tan wonde ko hande ko makisal solli ko enen cohli ko enen jiiɗi yaarude yeeso enen jiiɗi hay gooto wasa dartinde te hay gooto dartinda en maa ngi sant maa ngi sant les organisateurs maa ngi sant se jeunes ces femmes ces sages mag coono bi ñuy daj pour que ñu jëm kanam maa ngi sant ces charmantes dames qui m'ont porté et qui me portent dans leur cœur Merci beaucoup.